الحمد لله رب العالمين نيغي سنت يالله سبحانه وتعالى دي جوليك سلمال تي سونو سانغ بو تيد با سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم بولول وي نيغي لين دي نيو دي لين واخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته غيناو لولو فيديو بيغا خامني موم لا بوك اندالي دون ناكو جونج بغون ناكو غيس يالله دوك ما ديغلوكو ولا ما سيطان كو ليغي ديغلوكو jëmm ji nga xamante ne moo ciy wax moo wax démb wala boog moom lañ seetaan démb benn vidéo mu wax ca ni sànni jamra aada la joo xamante ne fuqahaaw yu ñoo ko dugal ci aj dafa bokk ci aada yi fuqahaaw yu dugal ci aj mu ne moom dafa contre sànni jamra ndax nit ña nekk fale di sànni naan dañuy sànni iblis mu ne yàlla ëpp na loolu nga xamne fofu ñaari mbir la boole mbir mu ñëkk mi mooy mu contre loo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da koo def ci aj ba pare ne aj leen ni ma aje boroom xam-xami lislaam yépp dëppoo ne loolu ci jëf yi nit ki di def ci aj la bokk kooku mooy njombe wu njëkk yu mu njëkk def mooy opposé gu mu opposé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca wax joojee loolu wéyoon na ñaareel bi opposé gi mu opposé waxe bi mu teg ko cim xelam xel mi mu ko teg mooy lan mooy nee na nit ñi bu ñuy sànni dañ naan iblis la ñuy sànni mu ne yàlla ëpp na loolu kon jàpp gi jàpp ne iblis la ñuy sànni loola moo ko wàccloo yoon woo ba mu opposé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk xam la ndax du sànni jamra iblis moo tax ñuy sànni jamra di ko xaañ waaye dafa bokk ci comme ni ñuy wëri kaaba gi juróom-ñaari yoon non la ñuy sànnee nyari ñaari xeer ca jamara ba bu ci ne ñu kabbar amul différence seen kenn firil lu tax ñuy sànni jamra juróom-ñaari yoon di kabar ludul dul ne yonantu bee ko def digal ñu ñu aj comme nim aje ñu def kon comme nam ko defee alayhi salatu wassalaam te comme lañ waxoon ca vidéo bale ne loo xel moomu boo ko toppee ci mboolem xeetu jaamu yàlla yi da ngay daal di weddi lislaam set wecc ndax kon da nga naan julli di ka duma ko def ndax yàlla ëpp na loolu wër kaaba gi duma ko def ndax yàlla ëpp na loolu jàpp di raxas ay cër bàyyi yeneen duma ko def ndax yàlla ëpp na loolu diine ji day daal di naax saa waaw moom moom mu nga xamante ne moo waxoon wax ju rëy joojee nga xamante ne borom xam-xami lislaam yi kenn mësu ko cee wax kooku kenn ñemewu ko mu mu dàq lu sax ci diine sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey moo ñëw ni nit ñi nañ dem ca fa ñu denc béréb sang diw sangam ñaan fa seen soxla koo xamanteni mooy kilifaam nañ dem ñaan fa seen soxla mbokki julit yi kan ci saaba yi wala sax bàyyil saaba yi yonent bi salallahu alayhi wa sallam ndax mas digal julit ñi ngir ñu dem ci benn xabru di fa ñaan soxla loolu ku ko xam nag ma andil kon moom mi ngi digle ngir ñu defal kilifaam loo xamante ne moom da ciy jëlee ja moom ci boppam moom miy dund mi ngi digal nit ñi loo xamante ne saxul ci diine yàlla ji ci waxtu woo xamante ne weddi na lu sax ci diine yàlla ji mu ne da koo contre te ne dafay jiite ay nit bëgg leen a teg ci yoon wu jub wi nga xamante ne mooy yeggale nit ki ci ngërëmal yàlla loolu jan diine la kon jullit ñépp war nañoo bàyyi seen xel lu mel ak ñu mel nii bima bi alquran Masna def ben talif bu ama am solo amatuma téere ba ci walu cëriñ manam ab sëriñ nu muy mel di saxal melokaan yi nga xamantene non la ab sëriñ wara mel waaye di ŋàññi melokaan yi nga xamantene ne sëriñ da ko wara sori waaye lii ñu gis ci vidéo bi ak li mu ci wax nii saxal loo xamante ne saxul ci alquran ak sunna dàq li nga xamante ne moo sax ci alquran ak sunna ne da koo contre te ñu baree bari ñu mel ne moom seen tànk sax musta tege fa ñuy sànnee jamra seen tànk musta tege fa ñuy wëre kaaba bi maanaam mosuñoo aj màkk te fu ne danañ ko wër ci àdduna bi comme niñ ko waxee woon lan moo xew kilifa ci diine du wax ne kilifa ak diine ndax diine moom da nga ciy nekk kilifa bu fekkente ne xam nga diine ji di ci woote jaar ca yoon wa waaye di woote woone kilifa nga ci diine ba pare ponku lislaam bii di aj nga man ko teel nga lànk doo ko def waaye yemul foofu nga taxaw ne jaamu yàlla gu sax ci biir aj nga taxaw ne dama ko contre te ñu baree bari nag mbokki jullit yi danaa wax benn sew sew foofu moo di ne ñu bëree bëri dañuy bàyyi aj bàyyi goo xam ne ci pas-pas la tege du topp bànneex de pas-pas moo ko lal nga xamante ne bàyyi gu ànd ak tayeef la gu pas-pas lal moo tax ñu bëree bëri dañuy dund ba faatu fu ne danañ fa dem ci àdduna lu ne danañ ko am mën nañ koo am ci alal waaye seen tànk du tege màkka lu tax pas-pas moo ko lal bàyyi ponk lislaam te tay ko te pas-pas lal ko mbokki jullit yi kon jullit ñi war nañoo yeewu xam ne képp koo xamante ne day bañ day contre lu sax ci téereb yàlla bi sax ci sunna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu contre ko fésal ko ba pare di woote ci loo xamante ne saxul ci alquran ak sunna naan dem leen ca sama xabru wayjur ngeen ñaan fa seen soxla ku fa ñaan sa soxla ku say bëgg ku bëgg say mbir avancé na nga dem ñaan fa sa soxla lii kan moo ko mas sa wax ci jullit ñi saaba yi kan moo masa wax ne dem leen ci xabru yonent bi ngeen ñaan fa seen soxla saaba yi sax ñu wax loolu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak darajaam ak ziyaare armeelam ak lam ca wax moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam saaba yi mosuñoo wax ne dem leen ci xabru yonent bi ngeen ñaan fa seen soxla naka noonu amul kenn ci taabiuna yi koo xamante ne mas naa wax ne dem leen ci xabru saxaaba yi ngeen ñaan fa seen soxla lu tax moom mii mu ñu yebal ci xabru way juram ngir ñu dem ñaan fa suñ soxla mu ne ku fa ñaan sa soxla ku bëgg sa mbir avancé demal ñaan fa sa soxla ndax lii sax na ci alxuraan ak sunna mbokk yi kon di woote ci loo xam ne saxul ci alxuraan ak sunna ba pare di weddi li sax ci alxuraan ak sunna contre ko ba pare ne da ngay woote ci diine kilifa nga ci loolu ci sunu réew mii rek lañ ko gis kon nit ñi nañu yewwu nañu bàyyi xel lu mel nii di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu musal ñu ci ñi nga xam ne dañuy woote ci ak réer waaye mu may ñu dégg ci diine ndax ku yàlla nam mu ci yow aw yiw dalañ may ak dégg ci diine comme ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi alquran ak sunna maa ngi leen nuyu di nuyu Moustapha Cissé di nuyu mbokk yëpp di ñëw rek ci ma déglu na am na audio yu ma déglu yoo xam ne benn bi jóge na ci Mourtala Gueye ak yeneen yeneen déglu naa leen. Euh, muy wax ci vidéo bi nga xam ne sëriñ Moustapha Sy euh, Moustapha Sy diine def na ko muy vidéo barki dem bi mu wax ci wàllu sànni jamra di wax façon ba nga xam ne xëy na moom lañ koy defee wax ji xaw a lënt ci ñoom ñu traité ko nu mu leen neexee loolu seen digganteeg sëñ Moustapha Sy la ak seen digganteeg ñoom deuxième bi moo indiwaat beneen vidéo boo xam ne bii moo tax mooy wax ndax bii man moom moom mooy mooy li nga xam ne moom la wahabi si dàqal mutasawifuna yi dañ contre ko lool bind ci téere wax ne dañuy jaamu ay nit dañuy jaamu ay xabru tudd ñu xubur yu tudd ñu lépp mu seesoo boo xam ne man moo tax ma ñëw di ci leeral insha allahu rabbi te gis ngeen Mourtala Gueye ni mu ko traité ci làmmiñ woo xam ne dama koy faral di wax rek heureusement léegi Sénégal yi xam nañ ko bu baax a baax a baax ci waxinam ah, li ma ciy leeral mooy sëriñ Moustapha Sy yàlla na ko yàlla dëgëral dafa wax ci fi nga xam ne moom la war a denc waajuram moo xam ne foofa kat bërëb boo xam ne mën ngeen faa dem di ñaan loolu sëriñ Moustapha Sy njëkku ko wax déedéet bépp ah mu tasaw yu fu ne yi dañoo gëm dañu mën a tuddee tabarruk ak tawassul ñoom dafa bokk ci liñ seen pas-pas ñu gëm ko te loolu saxaabatu kiraam yi gëm ko daan ko def ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ulama ul umma yi ci ëpp te bokkuñu pas-pas wahabis yi daan ko def ñoom ñëpp daan ko def kon loolu bu fekkee ne wahabis yi ñëw nañ contour tabarru ak tawassul ba bëgg sukkandiku muxlaat gi bëgg sukkandiku ci waxi sëñ Moussa si ji ba di ko déformer di ko taxariif di wane ne sëñ Moussa si nee na daa mabbu benn ponk ci acc loolu dañuy bàyyi ba sëñ Moussa si waxal ko boppam Moussa si bu waxalee boppam ne daa na ne jamra bokku ci acc je suis contre ramyul jamra wala ramyul jima je suis contre. ak nam ko waxee mu leer boobaa dana xam ba xam ñun boobaa lan lañ ko war a mën doon ak lan la ñu wax ak moom fu mu mënti doon ñun dañoo gëm ne dañu faa suñ tubaab bind na ko téeram ba ñu wax naxaju xadaal xaaj bind ko ci masaaliku ji naan ne ne bokk na ci bërëb yi nangoo ñaan mooy xabru ambiya yi ak xabru awliya ulay taala yi noonu lañ gëm waaye ñëmuñu fa ngir jaamu leen ñëmuñu fa ngir def naa dañuy dem tawassul ak tabarru loolu lañ gëm wasalaamaaleykum wa aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi nga xam ne moom laa bokk numéro mu àndaale ginnaaw bi ñu nuyoo mbokk yëpp ñi ngi xamle ni Soufiane la mu waxoon ci toroxtaange gi nga xamante bidaa ak seenu ku weeru borom bi tabaraka wa taala di leen weer saa su ne moo dal mbokk mi loolu mooy lan mi ngi dogal ngant koo xamante ne dafa contre lu sax ci lislaam borom xam-xami lislaam yépp booloo ci mu di ko dogal ngant di wëlbati ay waxam di ko rafetal te wax ji leer naññi di ñaanal kooku yàlla kooku yàlla dëgëral ko ci waxtu woo xam ne ña ngay sikkal ka doon bindal yonent bi sallallahu alayhi wa wax yu bi wàcc ci moom yonent bi ñaanal ko yàlla gindi ko di gindi aw nit ci moom yonent bi ñaanal ñaanal ko yàlla fegal ko mbugal yonent bi wax ne armée ba nga xamante ne ñoo njëkk a war géej ga di xeex ci yoonu yàlla aljanna war na ngir ñoom te Muawiya jiite woon ko Muawiya moom ñu doon wax naka sudul noona moom mënu koo dugal dogal ngant bal muy fottasoo ko tàccu ka doon jam muawiya tey ngóor sii nga xamante ne tey moo ñëw weddi loo xamante ne dafa sax ci lislaam mu ñëw di ñaan yàlla dëgëral ko di ko dogal ngant toroxtaange munta weesu lii inna alladina ittaxadu alijla sa yanaaluhum gadabun min rabbihim wa dillatun fi lxayaati dunya ña doon jaamu nag wa ca nit yonent yàlla muusa ya yàlla nee na merum yàlla dana wàcc seen kaw ak toroxtaange sufyaan ba mu waxee ne loolu day dal waa bidaa lum ca teg dani wa kadalika najzil muftarin yàlla nee na noonu la ñuy faye képp koo xamante ne dangay ngay duural ci lislaam képp koo xamante ne dangay duural di indi ay duur mooy ku wax ne nangam saxul ci lislaam dama ko contre nga dogal ko ngant kooku dural nga fete wuroy te it yaangi fete ko xamantene ne ku jeng la waccu yoon ci masala mo mem wax waye nga ànd ak ka nga xamantene ne saga saba yi di jam muawiyah ibn abi sufyan indi nga dur wuroy ku yalla geureum akub yonantam nga kay jam pas-pasam yobbu ko sawara Subhana Rabbiyal azim kon limo moy wanene wa waa kon défendre waa neen ak ñey waxuk neen moo leen gënal fuuf ñu defendre kenn ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa moo tax ñooñu déglu leen sax yàlla xam na ni day yàq li nga xamante ne mooy waxtu jullit ndax doo dégg ci seeni kàddu wax ju jub waaye nag dañ leen di déglu léegi ndax lii rot ci seeni kàddu ci ay njombe ñu di ko mën a wax jaami yàlla yi lii rek moo ko waral wasalaamu warahmatullahi wa rahmatullahi wa barakaatu. baarakallahu mbokk mi maa ngi la jaajëfal baax waaw tarixatu tijaaniyatu ku ko laal ma jóg lu tax am ku laal muawiya man ma jóg di ànd ak moom di ŋàññi muawiya man ànduma ak personne qui ce soit pour ngay wax lu ñaaw ci personne qui ce soit waaye buñ ma indilee wax ju wér ju bàyyi ko ci yonent bi mu dal kenn ci gaañi jox la carton rouge man ma jox la carton rouge toppandoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam point amaa nag si li xaj dafa tagg Muawiya loolu ay sos la amoo ko daa fekk nag turam ci xilaas zahab daa ko fa fekk ñaari yoon gis naa photo bi ngeen koy dugal ko dugalaat nan El malik Malick sax day tàgg Muawiya yéen xam ngeen bu ngeen référé woo Seydil Hadj Malick ñàkk ngeen fu ngeen wéeru waaye maal asafi sadid Sidi haji Malik taggul Muawiya ay saxaaba la cité seeni tour, cité seeni tour ba agsi ci Muawiya continuer di cité seeni tour, di cité seeni tour bay ñaan ni farda ilahi an jamiihimi ya ñi ñëpp gërëm leen loolu ana lan moo ci tagg Muawiya laanu man maa ko adressé Muawiya mais am na lu ko gën bon am lu ko gën ñaaw te mooy fen fen boo nee maa nga ca maa nga ca noo ko waxeeti waxul ja alxaqu di ànd ak bàyyi di yàq Muawiya lu mel ne xeme loolu sëñ bi bu dee da koo dégg mbaa ñu nettali la ko dama naan la da juum ka la doon nettali nettali la la am bu dee nag yaa ko dégg dégg la ma wax ba noppi toogaat fii naan maa yaay yàq Muawiya ca waxul ja alxaqu lu mel ne xeme loolu dama naan la ay fenn la sëriñ bi man organisé naa fa ñaari debaa kii di sampu xadis buy tagg Muawiya eh, buy ŋàññi Muawiya kii di sempi xadis bi ndax bëgg tagg Muawiya ma nekk ci seen diggante ñoom ñaar kenn ku ci nekk ma laaj la li ngay wax lan moo ciy say firnde ba debaa ba jeexee pour neutre nekkuma fa naan kii moo am dëgg kii moo ñàkk dëgg nekkuma ca dama ni ñi doon déglu ñu ngi doon dégg am na ñuy xel ku ci nekk na jàpp ca la la lii man naa ko wax mais ci groupe doo fi indi audio bu wàcc ca groupe ba may ŋàññi Muawiya Muawiya bi ma koy ŋàññi aatumaan fàqmaan dégg na ko sëriñ ki ci des sëriñ Seex Ja ma ma jottali ay audioom ma jottali ko audio bii ni ko jottalil ma ko aatumaan waaw ni ko nee ko moom ak Muawiya ak ku bokk ak moom pas-pas parce que boobu mi ngi dal ci mag ñi sama sëriñ Seydil Hadji Malick ak yeneeni sëriñ adressé leen lu ñaaw ma boole ko moom ak Muawiya mi muy plaidel adressé ko laanu loolu saay waxa الحمد rabbil رب العالمين yi audio بيغا خامني موم لا بوك اندال bokk مي بوبليي كو publier ko ki ciy wax ne boroom xilaasu dahab dafa tudd saaba yi doon tudd saaba yi doon tudd saaba yi tuddaale mu ne ba mu tudd ñeneen tudd ñeneen tudd ñeneen ba sottal ne yal na leen yàlla gërëm ñoom ñëpp mu ne loolu tagg Muawiya newu ca dama bëgg li may wax nii ne ko ñëpp dégg magi senegal dëgg la amul koo xamante ne ku dul bi koo xamante ne mucc nga ci njuumte man ngaa juum magi Sénégal ak magi Amérique ak magi Arabie Saoudite ñoo ci yem ku ci nekk da ngay juum di jaar ca yoon wa waaye amul koo xamante ne nag ci doomu aadama yi ragal yàlla ñëpp koo xamante ne danga nga juum tey ko boo juumee dañuy wax ne njuumte laa ngi nii kat moom yàlla ko yàlla jéggal nañ topp li yonent bi wax yàlla na ko yàlla jéggal moom mi juum mag ñëpp noonu la ñuy jëflante ak ñoom ku dëkk Sénégal ak ku dëkk feneen a ci boo ko yem waaye li ma bëgg a xamle mooy magi Sénégal kenn mënu leen a jam ci wax ci saaba yi naka sudul noona te képp koo xamante ne yaa ngi askanoo ci ñoom ba pare jam kenn ci saaba yi bëgg leen koo askanale ñoom sori nañ ko bu boobaa yow yaa féddi yow yaa féew fent sa yoonu bopp woo xamante ne ña alku ñoo ko fent ña alku ñoo ko fent te ku ko wàccul da nga yegg ci mbugalum sunu boroom mooy di wax ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naka sudul noona ndax lan ndax da nga opposé yàllaa ko yonentam muawiyatu bnu abi sufyaan mii ca ñooña la bokk lu tax ca ñooña la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanal ne yàlla yàlla na nga gindi yàlla na nga gindi ay nit ci moom yonent bee ko ñaanal yàlla subhaanahu wa musal ko ci mbugal waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo seedeel muawiya aljanna moom ak armée ba nga xamante ne ñoo àndoon ak moom li njëkk ci jullit ñi di war géej gi di xeex ci yoonu yàlla yonent bi ne armée boobee nga xamante ne jëmmi jamono dana war ci kaw géej gi wala book armee bi njëkk a war ci kaw géej gi di xeex ci yoonu yàlla ñoo ñooñu aljanna war na ñeel leen muawiya moo ko jiite woon ci loo xamante ne mu ngi ci saxiixul buxaari yi waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel armée ba mu Muawiya jiite woon aljanna nit ñëw ne mua nit ñëw daal di rëbb Muawiya ba pare mu bëgg cee laafaale magu senegal ne ñoom kenn musu cee tagg Muawiya te Seydil Xaaji Malik mi mu tudd duural ko ne taggul Muawiya te mu tudd ko ci saaba yi tudd ko ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal leen yàlla ngërëm yal na leen yàlla gërëm ñoom ñëpp ana wan tag moo gën a rëy nga ni diw ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bokk doy na sëkk ba pare mu def la ko yàlla sant ربنا اغفر لنا wa li ixwanina alladina sabaquna bil iman ñaanal صلى الله عليه وسلم نيوم wa تي معاويه تي نيمو ليم تي صابا lim ca saaba ya ca la bokk loolu doy na tagg mu ñaanal leen ñoom ñëpp te loolu kon ñun bu fekkente ne masala bu ñëwee ku wuuteeg masala mi kum mën a doon ñu ne ah kooku wàcc na yoon ak ku mën a doon moo xam mag la moo xam xale la moo xam Sénégal la dëkk moo xam beneen dëkk la dëkk bu fekkente ne dañoo jaar yoon ci masala ñu ñëw bëgg leen a wàccloo yoon bu boobaa danañ ka leen bëgg a wàccloo yoon danañ ko teg ci aw yoon xamal ko ne ko magu Sénégal amul kenn ku ci masa wax Muawiyatu ibn Abi Sufyaan naka sudul noona tegal fële tagg wi tagg muawiya weesuwul nga tudd aw turam ci saaba yi doy na sëkk aw tagg aka neexoon nit ku ne ci ñun baayam wala moom ci boppam ñu boole ko ci saaba yi maanaam yàlla subhaanahu wa taala jox ko ngëneel lu toll noonu mu bokk ci saaba yi ñu ne ko ci saaba yi nga bokk loolu doy na sëkk même bu amul weneen tagg woo xamante ne moo koy préciser loolu doy na sëkk aw tagg kon bu fekkente magu Sénégal kenn ci ñoom taalif na ab téere di tudd saaba yonent bi ba boole ca Muawiyatu bnu Abi Sufyaan aw tagg gënta rëy loolu ñaareel bi mooy mu ñaanal ko yàlla subhanahu wa taala ngërëm boole kook saaba yi yëpp te loolu mooy sunu warugar kon magu Sénégal kan moo ci masa xas Muawiya wax ko naka sudul noona ñii nga xamante ne ñooy askanoo ci ñoom tey ngir xex sunna ak bëgg lu naqari wa sunna ñuy laan muawiya diko reub te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko yàlla gindi ko gindi ci ñoom aw nit waye sédel ko aljanna mom ak armée bam andalon ngir lan ngir opposé wa sunna waye ngir wax leen lu leen naqari wax leen lu leen naqari ba dugal sawara kenn ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam atene sawara la jëm atene ne la atte ne moom ab workat la atte ne moom ab naafiq la kooku mooy dawug daay tabbi ci jëmb waa sunna ëpp nañ law demin ñun dey ahlu sunna dañ koy wuyoo saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ leen di wàccee seen place loolu de moom magi Sénégal kenn du leen ci jàmm mukk sunu mission mooy lan moy défendre diine yàlla ji défendre andando yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xamantene ño toxal diine sunu borom ji ndax ku len jam rek jam nga diine sunu borom muawiya ñaata hadith la solo jele ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy hadith yu wér yi ñëw ci al bukhari ak muslim ak yenen téré sunna yëpp ku ko jam koku jam nga mboolem hadith bo xamantene muawiya solo nako ana kan ci sabayi moy ki nga xamantene waxna naka sudul nonu ci saxaabatul kiram danañ wuté de ci sen bir mota Ali ibn Abi Talib fan la massa genné Muawiya ci diine ak wuté gi dox sen digënté yëpp Muawiya ibn Abi Sufyan wuté nak Seydina Ali ba xex am sen digënté كان لام علي بن ابي معاويه بن ابي سفيان مسا генي علي بن ابي طالب في دينه مك موتاخ كيروك با نيوي نيكو دا غاي جايانتك سيدنا علي بن ابي طالب موني با نيوما جايانتك موم وايي ني ري عثمان نان لين ريغلي با نوبي ما دوغا جايانتك موم بو بوبا مان ما نجهك جايانتي كون كوكا دا دون غور غورلو kon taxawaay bii mooy bi nga xamante ne moo war ci bépp jullit loolu ci lañu nekk alhamdulillah magu senegal ci loolu lañ ne woon masala bi kenn du leen ci jam ñi ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu defal ñu tawfiq defal leen ko waaw Aboubacar Seck waaw loolu de du sos du tuuma buñ ko waxee dëgg la audio baa foofu mën nañ la ko wàccee léegi mën nañ ko wàccee léegi Cheikh Dia kenn la ci groupe bi la doon waxtaanal ci suuf man ak moom mu di ma jottali ay kàddu yu bàyyi ko ci aatumaan fàq man ma di ko yóbbante ay kàddu pour mu yóbbul ko aatumaan ci ojo yooyu nag la bokk aatumaan ŋàññ ma ŋàññ sama sëriñ ma delloo ko ŋàññ ga delloo ko ŋàññi ay sëriñam boole ci ay sëriñam Muawiya audio baa ngi foofu mën nañ la ko wàcceel ñoom nag ma al asafi sadidi la ma wax atumaan dañ koo dagg de siiwaluñ ko la ma wax sëriñu atumaan la ñu bàyyi di ko partagé noonu waaye man la de man Malick mbay boole audio boobu boo ko déggee man la jaawale wuñu bul jaawale man mii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xayaakumullah mbokk mi ma bokk numéro mu àndaale nga xam ne nee na dafa am koo xamante ne dafa wax sëriñam naka su noona nee na moom it mu wëlbatiku wax naka sudul noona ay sëriñam waaye mu boole ci Muawiya daal di koy rëbb mu reconnaître loolu ci audio bi nga xam ne ci laa teg sama loxo euh, wolof dafay faral di wax ne yedd yërëm a ko gën waaye mbokk mi waxi mbokkum julit mu yërëm mbokkum jullitam moom lay yëkkati lu tax li jiitu mooy ñi muy wax ne mooy ay sëriñam yoo xamante ne wax naak nit nit kooka ŋàññi leen sëriñam yooyee ana kan moo ci masa ŋàññi muawiya ibnu abi sufyaan radiallahu taala anhuma wax ko naka sudul noona kooku benn la ñaareel bi mooy xanaa xamul ne muawiyatu bne abi sufyan radiallahu taala anhuma ci saxaaba yi la bokk xanaa xamul ne bi sallallahu alayhi wa dafa tere ku ŋàññi ay saabaam wax ci ñoom naka sudul noona la tasubbu asxaabi ñetteel bi mooy xanaa xamul ne yonent bi dafa ñaanal muawiya allahumma jacalhu haadiyan mahdiyan wahdi bihi yow yàlla yàlla na nga ko def ku gindiku kuy ginde waaye na nga gindi aw nit te sabab bi jóge ci ñoom xanaa xamul ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko ñaanal yàlla musal ko ci mbugal waqihil adab xanaa xamul ne yàlla euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo seedeel aljanna armée bi nga xam ne mooy njëkk a war géej di xeex ci yoonu yàlla armée booba comme ni mu ñëwee ci saxiihul Buxaari Muawiya moo ko jiite woon yonent bi ne wajabat qad awjabu maanaa def nañ jëf joo xamante ne mooy waral ñu dugg aljanna kon say sëriñ yépp musuñu ko ŋàññi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seedeel ko moom ak armée ba mu àndaloon al aljanna ñaanal ko mu bokkoon ci ñi ko jege lool di ko bindal waxyu kon ana kooku naka ngay taxawee di ko rëbb boroom xam-xami lislaam kenn ci ñoom ñëw nañ ne ko am na aw nit woo xamante ne dañuy rëbb mu Muawiya mu ne ñooñee di rëbb Muawiya yal na rëbbum yàlla dal ci seen kaw yal na rëbbum yàlla dal ci seen kaw kon ñi ngi ñaan mbokk mi xuloo ak koo xamante ne da ngeen a wuute ci pas-pas lu mu mën a waxas lu mu mën a wax sab sëriñ bul yëkkati kàddu goo xam ne naka sudul noona la jëmee ko ci saxaabi mooy koo xam ne àndandoo yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa la te mu yonent bi wax ci moom li mu wax ci moom nga xam ne ñamu joteeloon ca saaba ya sax daawuñu ko rëbb daawuñu ko génnee ci diine yow nga nangoo tabbi ci njombewu tol noonu ki nga xamante ne moo wax sa sëriñ loo xam ne gis nga ni du noonu waxal ak moom bëgg lu ko naqari bum tax nga saaga kenn ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala nga di ko rëbb mooy di ñaan yàlla dàq ko ci yërmandeem ndax loolu boo ko defee fekk moom yàlla ak yonent bi fésal nañ ne gërëm nañ ko bu boobaa loola ci sa kaw la jëm te loolu kenn yéenewu ko sa moroomu jullit lii nag kàdduy laaye biir la yal na yàlla subhaanahu gindi jullit ñi te teg leen ca yoon wa mbokki jullit yi bu kenn jàpp ne man naa ñaawal jëme ci saaba yonante bi sallallahu alayhi wa ba mu wàññi leen dara ñoom yàllaa ko yonantam gërëm na leen wéy nañ ku leen ŋàññi comme niñ koy waxee saa su ne dafa mel ne ki nga xam ne dafa jaaxaan di gaana gaanawaay sobe siy génn ci moom day tëb ba ci kaw daan daanuwaat ci kawam du wàññi keneen dara yàlla ñu yàlla booleeg muawiya ak mboolem saxaabatul kiram dugal aljanna ya gën a kawe ñu feggoog yonantu ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wasalaamu alaykum wa rahmatullah alhamdulilahi rabbil alamin ñaareel bi mooy bi nga xamante ne moo ci mujj mooy képp koo xamante ne yaa ngi wax naka sudul noona kenn ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga xam ne keneen koo mën a jeng jëm ci moom di askanoo ci moom ka ngay ñaawal ci saaba yi di wax wax ju ñaaw jëme ci moom wala nga koy rëbb kooka moo gën sëriñ boo mën a am mboolem sëriñ bu ñëw ci lislaam ginnaaw saxaabatul kiram kenn ci saaba yi moo leen gën ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ne ñëw na ginnaaw saaba yi ñu koy teg ci kaw kenn ci saxaabatul kiram loolu amul jullit bi dafa war a gëm ne saaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo raw gaañ yi ñëpp kenn mënu leen a dab yàlla ñu yàlla subhaanahu wa taala defal tawfiq ba ñu mën a sopp sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sopp gaa ñu baax ña ko yàlla tànnaloon ndax yàlla moo tànn yonent bi tànnal ko gaa ñu baax gaa ñu baax ñooñu ko yàlla tànnal ku leen di dencal mbañeel rek yàlla nee na mooy ñi nga xamante ne ay yéefar lañ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بمعنى نيغا خامنتيني نوي بخال خول ييفري موي صابي كون كيب كو خامنتيني ياغي ييكتي ساب خول لن تي مبانيل نيل كين تي صابي يونتبي صلى الله عليه واله وسلم بو بوبا نلا وورني وارغا يون وغا خامنتيني موم لا ña weddi won yalla waron melokan wowo ñom dong ñoko melo ñom la ko yalla melale kon yalla ñu yalla musal ci fab ci sunub xol lenn loo xamante ne ak mbañeel la jëmee ko ci saxaabatul kiram lii lépp nag mbokki jullit yi li ko waral mooy comme lañ ko waxee woon moo di ne gaañ yi dañoo bëgg lu naqari ahlu sunna ba tax ñuy alak seen bopp xam nañ ne mënuñoo taxaw ci kanamu ahlu sunna ak i lay ñu ne xaaral nañ jëm ci saxaaba yi nga xamante ne ñoom dañuy askanoo ci ñoom bëgg leen lool ñu wax leen loo xam ne weñ wu ca dal dee bu ko defee dana leen naqari ñu wax saxaaba yi loo xam ne weñ wu ca dal dee comme ni nga xamante ne noonu la ñuy waxee ne suñ sëriñ yi dañoo juum ci ay masala sàngam ak sàngam lii moo waral lii bu boobaa daw ngeenuk daay bi ci ak jëmb bi maanaam mi ngi mel ne ki nga xamante ne yastajiiru min arramdaai binnaar mooy koo xamante ne naaj wi dafa tàng ci moom mu daw daal di cëppeelu ci ab sébb buy takk ak sawara fii kon noonu la mel nga xamante ne ahlu sunna yay nañ leen ci ay lay yu tege ci alquran ak sunna ngeen daal di dem alku ci rëbb saaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñaawal jëmee ci ñoom loolu du lor waa ahlu sunna du lor saaba yi waaye yéen ci loro loroo bu ko defee ngeen loru ñaari yoon lor ci war yoon woo xamante ne dafa wuuteek yoon wi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam rëdd waaye loru ci rëbb gi ngeen di rëbb saaba yi muy yoon woo xamante ne ñi gën a sànku ci ñi askanoo ci lislaam ñoo ko doon def ak ñi nga xamante ne euh, nekkuñu ci biir lislaam yàlla ñu yàlla musal ci loolu salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu docteur Mourtada Gueye mm-hmm. ñoo lay nuyu baax a baax ñoo ngi lay jox itam xaayatal ixtiraam donte léeg-léeg ñu mere la lool lool lool waaye léeg-léeg itam ñu ànd ak yow ci benn masala ci masail yi nga indi ginnaaw loolu lépp audio bi li nga ci wax ma ci waroon a taxalix bari na lool waaye dégg naa nasiixa yi waaye nag yaa ngee jaawale yenent bi sallallahu alayhi wa bu naan bu leen ŋàññi samay saxaaba bu fekkee ni danga ko taamim ci képp ku daan ànd ak moom rekk loolu njuumte la sa ñàkk dégg wax jooje la ndax kalimatu suxba luxatan ku daan ànd ak yonent bi rek daan àndak moom ci xare yi daan jullee ndoog moom daan woorandoog moom wóoru gàlle daan toogandoog moom daan tëddandoog moom añandoog moom yewandoog moom bu dee lii rek mooy kalimatu soxba ku mel nii rek saxaaba nga saxaab saxaaba yépp am na ci ñu baaxul loolu du samay wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànn na kenn ci saxaaba yi xamal ko turu ñenn ci saxaaba yi ni ko ay nafiq lañu est-ce que ñooñu dañ leen di boole ci taamim gi ab laaj la sëriñ Murtada boo ñëwee nga dikkal ma ci moo ndax ñi yàlla doon gërëm ca laaya ja laqad radiyallahu anil muminina moo ndax ña fa toogoon te bokkuñu ci muminiin yi xanaa bokk ci munafiqiin yi ndax ci ngërëm loolu lañ dugg bu ñëwee nga tontuma ci moo ndax kenn ci ñi ngeen di jiiñ naan saxaaba la ak di bii ci moom est ce que moom daa gën dina Ali ibn Abi Talib ba di ko saaga bay jox ndigal ñeneen pour ñu saaga ko ba kum ko sant saaga woo ko saagaal si Ali nga lànk imma dana la tëj wa imma dana la caw wa imma dana la mere mere goo xam ni parce saagaloo na la Seydina Aliyin saaga ko pourtant kooku ngeen bëgg boole ci biir saxaaba yi di tarab bii ci moom non saxaaba yi am na ci ñoom ay naafiq gëm ngeen ko gëmu leen ko alquran la xanaa daal alquran ngeen bëgg dund ak sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam taxaw na tiim ab néew yàlla ni ko bu fi taxawati boo kontaanee ci ñoom itam man kontaanuma ci ñoom ñooñ dañ daan ànd ak ti bi tudd ay saxaaba alxuraan la wala du alxuraan salaamaaleykum waaw sama laaj bi ñëw leen ci ñëw leen ci Serigne Mourtada Gueye yow yaa doon laabiire yaa doon def ak nasiha laaj yooyu ma laaj yow laa ci jiital keneen ko am tontu bi itam mën naa ñëw mais déglu ngeen ko Mourtada déglu nga ko keneen déglu na ko ku ci am tontom dañoo tontu ma ci 36 laa ko laajoon bi maa ngi ci 54. su ci amé tontu dina jël de maa ngi koy xaar inshallah rabbi en attendant ñu tàkku sant ñu. wa alaykum assalam wa rahmatullah cheikh bi ñi ngi lay fay di ñaan borom bi tabaraka wa taala defal ñu tawfiq te defal lako euh wax gi ngeen wax ne leg leg ngeen depo ak ñun ci ay masala leg leg ngeen wuté ak ñun lolu ci géewu xam-xam lu massa am la yagna wuté gi ak depo gi waye buñu wuté nañ dellu ci alquran ak sunna ngir xam ku ne ciw yoon amma léeg-léeg nga mere ma lool bu dee mer mi moo li ko waral mooy wuute gu ma wuuteeg waxu yàlla wala waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu wala lu boroom xam-xami lislaam dëppoo bu boobaa mer mu tege ci dëgg la nag ñu laay biir teg ñu ci aw yoon nga xamal ñu lan la ñu wuuteel ci alxuraan ak sunna bu ko defee ñu mën a dellu gannaaw balaa dee ñëw loolu lu baax la jullit noonu lay def ak moroom jullitam amma ngir ñëw ci point yi nga xamante ne tudd nga ko nga wax ne baatu suxba mooy nit ki ànd ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam rek taxul mu bokk ci saaba yi hunka yi waaye suxba kenn du ko firee noonu ci maanaam sahaabi yi kenn du ne mooy ku ànd ak yonent bi rek déedéet kenn du yem ci baatu luga boobu waaye da nga dem ci al istilaax boroom xam-xami lislaam nan lañ jàppee sahaabi yi mooy ku ànd ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam gëm ko waaye deewaale ngëm yàlla googu kooku mooy saxaabi kon muawiyatu bnu abi sufyaan mii nga xamante ne moom la ñuy waxtaane gëm na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daje na ak moom ànd na ak moom xeex moo ko doon bindal waxyu te ngëm yàlla googu moom la deewaale ci li ñu xam kon kooku kenn mënu ko génnee ci saxaaba yi lu dul mu wóor la ni génn na ci diine bu la wóoree ni génn na ci diine bu boobaa nga wax ñu ne muawiya dafa génn ci diine firnde laa ngi nii wala wax yu ñëw ne moom génn na ci diine bu dee am nga wax yu boo xamante ne mooy wane na ci diine nga andil ñu ko ñi ngi nag sunu xel nag fi ne nii mboolem xadiis boo xamante war nga koo andi mi ngi ci sunu xel waaye dañuy xaar ba nga andi ko ñaareel bi mooy xudayfa nga ni yonent xamal noon na ko turi naafiq yooyu ndax dañuy dugg ci matale gi ngërëmal yàlla matale ci saaba yi déedéet du ñu dugg waaye nag ñan ñooy naafiq yi nga xamante ne du ñu dugg naafiq yi nga xamante ne du dugg ci loolu ñan la ndax xam nga leen ndax xam naa leen ndax keneen xam na leen bu dee xam nga leen nga wax ma ko waaye bu ñu sori ci naafiq yi ndax Muawiya ci naafiq yooyu la bokkam déet ndax Muawiya moo waral waxtaan wi tey kooku kon ma nga fa di la xaar. wax gi nga wax ne laqad radiyallahu anil mu'minin yàlla gërëm na jullit ñi nga ni ñu gëm yàlla ñi nga ni kon ndax ña nga xamante ne ñoo ne woon ca foofee ñu doon defee jaayante ga te bokkuñu ci muuminuuna yi bokkuñu ci ñi gëm yàlla ñooñu ndax dañuy dugg ci ngërëm li foofu dañ lay wax ne na ñan ñoo fa nekkoon te duñu gëm te gëmuñu yàlla foofu ñu doon jaayantee ñan ñoo fa nekkoon te gëmuñu yàlla Muawiya ñu tax di waxtaan tayib foofa ñu doon jaayantee ndax muawiya nga fa woon kon loolu mi ngi lay xaar ndax ab saxaabi dana saaga Seydina Ali kay mën na koo saaga mën na koo wax wax ju ñaaw waaye loolu bu ko defee wàcc na aw yoon comme ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekke woon na ca jamonoom ñenn ci saaba yi di saaga ñeneen ñu gën a ndaw di saaga ñu mag ñi yonent bi mer ni leen laa tasubbu asxaab yi bu leen saaga samay saaba kon kenn ci saaba yi mën naa saaba saaga keneen ku dul moom waaye bu boobaa saaga woo mu ko saaga lu dafa wàcc yoon ndax kenn sa moroomum jullit moo xam saxaabi yi moo saaga saxaabi yi moo xam keneen moo saaga keneen waaye bu boobaa saaga woowu mu ko saaga ndax dana ko génnee ci mu nekk ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet loola du ko génnee ndax Seydina Ali waxuma ni du ma wax sax naan Muawiya saaga na ko wala saaga ko andil ma fu mu ko saaga déedéet dama ne bu fekkente ne Muawiya saaga na Seydina Ali saaga woowu du ko génnee ci ànd gi mu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa waaye du ko def ab yéefar waaye saaga wi wàcc na yoon da ci am bakkaar ci ko saaga sa moroom julit ku mën a doon waaye ndax Seydina Ali mi saaga woon. wax na ni Muawiya ab yéefar la loolu ab laaj la kon loolu mooy li nga xamante ne moo aju ci kàddu yi nga xamante ne yëkkati nga ko naka noonu wax gi bi may mujjee wax gi nga wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg indi nañ am néew mu bëgg koo jullee yàlla tere ko ko yàlla daal di ko koy tere mu ne kon am na ay naafiq yoo xamante ne ñoo newoon ci biir saaba yi moom kay ay naafiq ngi woon ci seen biir naafiq yooyu bokkuñu ci saaba yi waaye naafiq yooyu kan ak kan la ndax Muawiya ca la bokk yonant bi sallallahu alayhi wa sallam tere ga ko yàlla tere mu jullee kooka loolu waxyu la kon waxyu moom moo mën a xàmmee kii naafiq la kii ci saaba yi la bokk kon waxyu moo tere yonant bi sallallahu alayhi wa sallam loolu wala ridda gu ñu xam mooy nit ki génn ci diine bañ xam ne kii génn ci diine comme bi yonent bi génne àdduna ñi génn ci diine faatuwaale seen kéefar googu ñooña dañuy daal di génn ci saaba yonant bi sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu mooy ñi yonent bi di wax ci benn xadis ne ëllëg yowmal qiyaam bu dajeek ñoom fa nga xamante ne mooy ca déegam ba ñu tere leen te mu xamoon leen ne sama gaañ sama àndandoo yi sama àndandoo yi ñu ne ko ñuy xamoo luñ def sa gannaaw mooy dañoo génn ci diine ci te loolu sax maanaam ci gàttal bokk na ci dalil yi nga xamante ne mooy wane ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu génnee àdduna xamatut luy xew ci àdduna maanaam bu doon xam na liy xew kon dana xam ne ñooñee génn nañ diine ji gannaawam kon du ne usayxaa bi usayxaa bi kon ñi nga xamante ne dañuy wax ne yonent ñëw na gannaaw bi mu faatoo ah, bu boobaa kon xadis bi mooy taxaw ci seen kanam waaye loolu tey taxuñoo jóg kon daal loolu ay gendeeku la yoo xam ne mi ngi ci sa kàddu yi mi ngi jégalu ci ñàkk a mën a tënk gi wallahu alam amma ngir ñëw ci point yi nga xamante ne tudd nga ko nga wax ne baatu soxba mooy nit ki ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek taxul mu bokk ci saaba yi xunka yi waaye soxba kenn du ko firee noonu ci maanaam saxaabi yi kenn du ne mooy ko ànd ak yonent bi rek déedéet kenn du yem ci baatu luxa boobu waaye da dem ci al istilaah borom xam-xami lislaam nan lañ jàppe saxaabi yi ko ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko waaye deewaale gëm yàlla googu kooku mooy saxaabi yi waaw kay Serigne Mourtada Gueye taarif bii nga defal saxaaba istilaahiyan waaye génne ko ca kalimatu luxa ba rek te moo di saxaaba buñ ko waxee tam yayoo tarat bi ci nun mu gën ñu gën sunuy ndey gën sunuy baay ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa ci xeet wi saxaaba gën la bañ naan saxaaba istilaahiyan mooy ku dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm ko gëm ko wa amana bi te gëm ko waaye nga deewaale ngëm googe ku nii nii day taraddi lañu la ameel yaa ñu war a gënal sunuy bakkan sunuy ndey sunuy baay sunuy doom sunu lu ñu am ku mel nii ci kanam yonent bi yaa gën ci xeet wi kudul ku nii waaw dama lay laaj alxaaji Murtada Gay audio bi dafa xaw gudd dama koy def nii parce que point bo souligné amna fa ta'liq wala ma am fa laaj point bi dama la fay laaj ndax ku ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm ko est-ce que gëm gi dina nek ci xol nafiq nek ci même xol bi est-ce que lolu mën na nek ab laaj la newuma amul newuma amna dama lay laaj yow da nga na ma mën na nek wala nga ni ma munta nek est-ce que ngëm gii ñuy wax est-ce que dana nekk ci xol nifaaq itam ne fa ñaar yëpp ci benn xol est-ce que mën naa nekk. lii mooy Xudayfa nga ni yonent xamal noonu na ko turi naafiq yi naafiq yooyu ndax dañuy dugg ci matale gi ngërëmal yàlla matale ci saaba yi déedéet du ñu dugg waaye nag ñan ñooy naafiq yi nga xamante ne du dugg yi nga xamante ne du dugg ci loolu ñan la. ndax xam nga leen ndax xam naa leen ndax keneen xam na leen bu dee xam nga leen nga wax ma ko. akay ah, xamees na leen wala boog ñu am ñuñ xam ci ñoom na ñuñ xam ci ñoom waaye li ma bëggoon a saxal rek saxal nga ko fekk si ma ci te moo di ñoom ñoo ñu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa di julleendoo di worandoo wooru gàlle di ànd ak moom di dem ci xar yi ay naafeq ngi ci kon saxal nga loolu maa ngi dégg sànq sa taalibe yi. di wax ni euh, ñoom saxaaba yi ñëpp ñoo baax bi naa moom daal ku àndoon ak moom rek nangam nangam nangam nangam nangam nangam dañ laa war a sang ba nga set boole la ca saal ba ñuy dalal ñoom Aboubacar nag ñoom Seydina Omar rek ñoom Seydina Ousmane nag ñoom Seydina Ali nag ña mel ni moom ci mbaax déedéet du ñëpp am na ci biir saxaaba yi ci biir groupe bi ñu daan ànd ak yonent bi di dem fépp ñoo xam ni ay naafiq lañu ñoo ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamoon na leen am na ci biiri gaayam ñum xamal ñen ñennat ci nafiq yi xuseyfatu bnul yamaan ca la bokk nañ continuer ba xam lay waxaat waaye buñ sol ci naafiq yi ndax muawiya ci naafiq yooyu la bokkam déet ndax muawiya moo war waxtaan waaw naafiq yi ndax muawiya ci la bokkam déet ndax ma waral waxtaan wi tey ndax am naa ci wax yu aw ma ci wax yu waaye am naa ci joxoñub wax yu joxuñu wax yu mooy xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu mu wax xadis baa ngi saxiixu muslim donte yaa ngi naan yaa ngi xaar mboolem xadis bu ñuy indi teewlu nga ko ci sam xel kon jaakaar naa ni texte xadis bi mën naa ko bañ indi waaye mën naa la koy junj ca saxiixu muslim la nekk bari na ci yeneen téere sunan yi mu ñëw waaye naa la jox boobu Seydina Ali ibn Abi Talib xadis la wala asar la saxiixu muslim ñëw na ca. سيدنا علي دي نتالي نتالي غوخني دوكو غين دورا واخ لي مي واخ مو غين يونتي بي صلى الله عليه وسلم مسنا ما واخ نيما نيما كين دولا بغ لودول اب مؤمن واي كين دولا باج كودول اب منافق كين دولا باج كودول اب جوليت كودول اب نافق واي كين دولا بغ كودول اب جوليت لول حديث لا jàpp jàpp naa ni ump la xadis boobu wér na wala wérul boo ñëwee dellu si ci euh, prix mi moo ko firi wér na wala wérul boo ñëwee dellusi ci waaye laaj bi ma ciy toftal door a bàyyi audio bi mooy kon su boobaa ku daan saaga Seydina Alin dégg naa ko ci audio bi maa ngi ciy ñëw ku daan saaga Seydina Ali nga di ko seetal nii ci sa audio bii naan même bu ko saaga même bu ko saaga googu yaakaaruma nga weddi ko yaakaaruma nga dàq ko Muawiya daan na saaga Seydina Ali xaaruma la woon ci nga weddi ko fay la alhamdu bi nga ñëwee weddi woo ko sa suq yooyu dégg naa leen ñu naan ma Muawiya fan la mës a saaga Seydina Ali da ko daan saaga xam leen ko tey kuy saaga Seydina Ali nag ku la mën a saaga am tiyaaba man maa la ko wax léegi nag koo xani bañ na sayidina ali nafiq nga yonenti be ko wax sallallahu alaihi wasallam ken du bëgg sayidina ali ku dul ab julit ken du ko bañ ku dul ab nafiq mo ndax ko bëgg den ko saga yemo ci di sante ay gaay ñu di ko saga est ce ko bëgg di ko def non alhamdulillah waaw kon ñu euh tonto bala ngay enregistrer ba nopi ngir waxtu wi d'accord nga ni kon li ñu wax ci saxaabi yi boroom xam-xam yi wax ko ne mooy ku dajeeg yonent bi gëm ko deewaale ngëm googu nga laaj nga ni ndax ak naafiq mën naa dajeeg ak ngëm yàlla ci ab xol loolu mooy ndax kéefër mën naa dajeeg ak ngëm yàlla ci ab xol kéefër goo xam ne dangay ngay weddi ne yonent bi du yonent waxul dëgg nga weddi ne lislaam mooy diine ji nga xam ne dëgg la nga weddi baatu laa ilaha illallah loolu naafiq yi dañ ko weddi woon ba pare di feeñal ak ngëm yàlla ñaar yi moom te moom lu ñuy wax an nifaqul i'tiqaadi mooy naafiq goo xam ne ci pas-pas lay dellu mooy nit ki fas ne lislaam du diine dëgg yonent bi du yonentu dëgg yàlla baatu laa ilaha illallah du dëgg loolu la naafiq yi fasoon mooy an nifaqul i'tiqaadi ak loo xamante ne day jokkaloog lu mel ne lii loolu munta daje ci ñaari xol waaye muawiyat abi sufyaan mi nga xam ne moo tax ñuy waxtaan ndax moom loolu dafa newoon ci xolam kon wax wax ji yëpp foofu lay daanu jiwaat ñaar yooyu nga wax mooy ak naafiq gi nga xam ne mooy jëm ci pas-pas akuk ngëm yàlla mënuñoo daje ci ab xol mooy tontu laaj bi nga laaj ci gàttal. Euh, wax gi nga wax ne euh, kon am na ñu doon ànd ak yonant bi ñoo xam ne ci saxaaba yi ñoo xam ne ay naafiq lañ kooku kon da ngay daal di tebbiwaat lañ waxoon ci xamle gi ñuy xamle kan mooy saxaab yi. yow wax nga ko sànq nga dëgëral ko ne mooy koo xam ne dafa dajeeg yonent bi te gëm ko nafiq yi nag gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon àndandoo gi nga xamante ne jëmmi baatu ànd bi ba léegi yaa ngi koy firi ci luga te firi woo ko ci islah bu ci dellu gannaaw kon ku ànd ak yonent bi gëm ko kooku mooy ki nga xamante ne te deewaale ngëm yàlla googu kooku mooy sahaabi yi léegi nag ba léegi dañuy daan waat ca muawiya mi nga xam ne moo ñu tax di wax ndax muawiya dafa bokk ci naafiq yi nga xam ne ñoo àndoon ak yonantu bi am déet bu fekkente ne ci la bokk bu ko defee nag nga doog maa indil firnde foofu rek la wax ji ne radiyallahu anil muminin yàlla gërëm na jullit ñi nga ñu gëm yàlla ñi kon ndax ña nga xamante ne ñoo woon ca foofee ñu doon defee jaayante ga te bokkuñu ci muminuuna yi bokkuñu ci ñi gëm yàlla ñooñu ndax dañuy dugg ci ngërëm li foofu dañuy wax ñan ñoo fa nekkoon te ñu gëm te gëmuñu yàlla foofu ñu doon jaayantee ñan ñoo fa nekkoon te gëmuñu yàlla Muawiya ñu tax di waxtaan tayib foofu ñu doon jaayantee ndax Muawiya nga fa woon kon loolu mi ngi lay xaar ndax ab waaw kay ndax laqad radiyallahu anil muminina is yubayi'unaka taxta shajara ña yàlla gërëm cité leen mooy almuminoon waaye itam almuminuun ya nga xam ni yubayiuuna nabiya taxta sajara sallallahu alayhi wa sallam wa radiya anhum est ce que foofu Muawiya nga fam ndéet du débat bi loolu li tax ma dugal ko fi maa ngi ciy tontu képp ku naan saxaaba yi ñoom ñëpp nangam nangam nangam nangam nangam nangam dañoo war a gërëm dañoo war a ñaan yàlla mu gërëm leen dañoo war a dañoo war a parce que yàlla da leen a gërëm loolu boobaak léegi daanaka fukk yu wax juróom-ñeent yi dañ koy wax te anil muminina bokkut ak anil mubayiina ku fa jaayante woon te iman nekkul ci sa bokkoo ci ñi yàlla gërëm ci laaye bi waaye itam waaye itam waaye itam koo xam ni ab naafiq nga bokkoo ci laaya ji su boobaa nan ngay sangee mboolem saxaaba yi ci laaya ji loolu tax mu dugal fi laaya ji amaa Muawiya fa la ko fekkam fa la fekku demuma ci lolu lolu maa ngi ko indi rek pour kep ko nan sahaba yi ñom ñëpp baax ndax la qadar yàlla wa anil muminina isba bàyyi ko taxata sajara ay bi firiwul lolu ay bi mu'minina la wax waxul mubayina faqat waxul munafiqina ani muminina la wax ndax ab sahabi dana saga sayyidina Ali kay man nako saga man nako wax wax yu ñaaw waaye bu ko defee wàcc na aw yoon comme ni nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekke woon na ca jamonoom ci saaba yi di saaga ñeneen ñu gën a féete ndaw di saaga ñu mag ñi yonent bi mer ne leen laa tasubbu ashaabi bu leen saaga samay saaba kon kenn ci saaba yi mën naa saaba saaga keneen ku dul moom. waaw kay audio bii nga laaj audio bi yaa ko waxoon moo koy tontu. nee nga saxaab mooy ko ànd ak bi te gëm ko nangam nangam defal ko taarif taarif boobu jóguma ci maa nga ci ba léegi mais dama ni la am na ci ñi daan ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñu daan saaga ñenn nag ci ñi daan ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallama Muawiya mi ci la bokk daan na saaga Seydina Ali ibni Abi Talib karamallahu wajhahu saxal nga ko ci sa kàddu gi am na ci ñu ndaw ñi yaa wax léegi baatub saxaaba ni amoon na ci saxaaba yu ndaw yi ñu daan saaga ci saxaaba yu mag yi ba yonent bi daan ci mer du yàq wax léegi kon su boobaa tuddee nga saxaaba ab nafiq donte kalimatu saxaaba bi nga ko adressé nangu naa ni da ko ko jox luxatan waaye taarif ba nga defoon jàpp naa ni wàccagoo ca man it wàccaguma ca mais su ma nee saxaaba jox ko ko comme bii nga ko jox rek la pour ñiy déglu xam ni ñi daan ànd ak bi buñ nee saxaaba ñëpp dañuy dugg luxatan waaye istilaaxan nag naafeq yi dañuy génn mu muawiya moom day génn ak ñi mel ne moom dañuy génn naafeq yi amoon ci biir saxaaba yi jóguma ca saxaaba euh, taarif istilaaxiya ba de jóguma ca mais maa ngi ci saxaabi yu luxatan bi muawiya day génn ak ñi mel ne moom ku saaga seydina ali ibni abi taalib laa ni yonent bi nee na naafeq nga loolu yonent bi moo ko wax wala waxu ko Serigne Serigne Mourtada yonent bi moo ni ku saaga Ali naafeq nga ku bañ Ali naafeq nga noonu la ko waxee ku bañ Ali naafeq nga man maa ni la nit du bañ nit du bañ nit di ko tàgg waaye nit du saaga nit di ko bëgg ko saaga da nga koo bëggul Seydina Ali ku ko bëggul naafeq nga yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa waxuma ni du ma wax sax naan Muawiya saaga na ko wala saaga wu ko andil ma fu ko saaga déedéet dama ne bu fekkente ne Muawiya saaga na Seydina Ali saaga woowu du ko génnee ci ànd gi mu àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi ko def ab yéefar waaye saaga wi wàcc na yoon da ci am bakkaar ci ko sa du ko génnee ci ñi daan ànd ak yonent bi gëm naa ko su boobaa ànd ak yonent ànd ak yonent bi du ko ci génnee de waaye dina ko génnee ci saxaaba istilaaxan ndax def na ko naafiq ndax yonent bi moo ko ko seddeel euh, nañ déglu ba xam loo ci teg saaga ndax Ali wax na ni ab yéefar la ndax wax na Muawiya ab yéefar wala du ab yéefar mën na ko bañ a jar bu ko waxee ak bu ko waxul yépp bu ko yonent bi waxee moo gën a wér yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku bañ Seydina Aliyun naafiq nga Serigne Murtada bu ko Seydina Aliyun waxee bu ko waxul ñooyam mënuñu bañ a taxaw foofu waaye dama ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ne ku bañ Seydina Aliyun naafiq nga te Muawiya mii ngeen di défendre da daan saaga Seydina Aliyun daan saagalu Seydina Aliyun ana ñi doon wax ni amul nañ la laaj yow ba xam am na wala amul mën mën nañ maa bañ a gëm. donte yow weddi ma yow waaye ñoom mën nañ maa bañ a gëm man mais nañ la laaj yow mu Muawiya daan na saaga Seydina Aliin daan ko saaga lu loolu laa ni lum tudd lu dul na ko yonent bi tuddee bañ Seydina Aliin bañ Seydina Aliin nu ko yonent bi tuddee nafiq nafiq yooyu nag raaxaloo woon ci biir ñi daan ànd ak yonent bi man duma bii ci ñoom alhamdulillah wax gi nga wax ne am na texte boo xamante ne am nga ko buy wane ne muawiya naafiq la waliyaadu billah nga ne ndax yonent bi sal salallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis boo xamante ne fi saxiixi muslim ne ali ibn abi talib laa yuxibuka illa mumin wala yubgiduka illa munafiq ku gëm yàlla moo lay bëgg waaye naafiq moo lay bañ nga ni te muawiya da doon saaga ali ibn abi talib radiallahu taala anhuma te koo bañul ndax danga ko saaga ngir tontu loolu dañ lay wax ne demal ci borom xam-xam yi nga xamante ñoo firi hadith boobu yépp ana kan moo ci def muawiya ab nafiq ngir ne dafa saaga sayidna ali radiallahu taala anhuma li ma la waxoon moom lay waxaat du ma taxaw ci ndax saaga na ko wala saagawu ko dama ni la bu fekkente ne saaga na wér na ni saaga na ko kan ci boroom xam-xam yi moo ne naa naafiq la ngir xadis bii kan moo la ci jiitu ci boroom xam-xam yi benn ñaareel bi mooy nit ki mën naa saaga nit ngir mere ko ngir jàpp ne nit ki muy saaga dafa wàcc yoon dafa yeyoo woowu saaga fekk ne dencalu ko mbañeel ali ibnu abi talib de mosu koo dencal mbañeel waaye mere woon na ko ngir li mu bañ a taxawal atte ci kaw ñi nga xam ne ñoo rey Ousmane te moom moo doon waliyu Ousmane comme ni ko waa Cham daan woowee nga xam ne moo war a taxawu Ousmane ci li ko dal fitna bi dal ci kawam. mu jàppoon ne it moo ne ci aw yoon Seydina Ali moo wàcc aw yoon moom loolu la jàppoon ba ni ñu xeexe li ñuy wax ci saaga wi moom la ñuy wax ci xeex bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na qitaalul mu'mini سباب المسلم فسوق وقتاله كفر kufur جوليت nga saaga ko ak katchor la waye nga xex ak mom lolou kefer la te ñaari kurel ci julit ñi xex nañ digante sayidna sayyidatuna aisha ak zubair ak talha ci wetam ak sayidna ali sayidna muawiya ak sayidna ali radiyallahu taala anhuma ñaari kurel xex nañ ndax dañuy jàpp ne ñaari kurel yi bu ci nek yefer la ndax dañoo xex ak ñi nga xamantene ñoy ay julit dedet lolu kufru amali la manam nekkul kéefar guy génnee nit ki ci l'islam kon jëmmi saaga du tax nit ki ñu japp ne dafa bañ ki mu saaga mer moy waral saaga ak japp ne ki nga saaga yeyona li nga ko wax motax bi wa sallam keroog ba ñenn ci saaba yi saaga ñeneen ñoom ku mel ne ñoom Abdurahmaan ibn Awf ñooñu nga xamante ne ay mag lañ ci saxaaba yu mag yi lañ bokk am ñenn ñu ndaw ñi ñu leen saaga yonent bi ne leen laa tasubbu asxaab yi daal di wax seeni i ngëneel ndax daf leen wax ne ay naafeq ngeen yéen ñiy saaga sama saaba yu mag yi te sama te saaba yu mag yi Ali ibn Abi Talib kenn jiituwu ko ci ndax daleen wax ne yéen ñëpp ay naafeq ngeen déedéet. kon bañ ali ibn abi talib moy nga bañ ko ngir ngeenel giko yàlla jox ngir l'islamam mbañeel gogou moy ki nga xamant moy li nga xamantene moy yóbbe nit ki ak nafiq ko xamantene da koy génné ci l'islam waye jëmmi nit saga nako rek du ko génné ci l'islam feek mbañeel gi nekul ci xolam te muawiyat ibn abi sufyan bañul won sayidna ali radiyallahu taala anhumah luko luko luko waral benn bis dañoo ñëw tàggee ko sayidina ali bi nga xamante ne xawaari yi rey nañ ko sayidina muawiya ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal di commencé jooy soxnaam ne ko yow de barki démboo njaay nga doon xeex ak moom tey nga di ko joy. mu ne ko way xaka yow lu la dal innama abki لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه wa xayrihi dama koy jooy ngir li nit ñi ñàkk ca lewetam ga ca xam-xamam ba ca ngëneelam ga ca jiitu gi mu jiitu ci lislaam ca yiwam wu bari wa kii da nga ko wax koo bañ ci beneen riwaaya mu ne innaki la tadrina ma faqada annaasu min alfadli wal wal ilmi wal fiq mu ne ko xamoo li nit ñi ñàkk ci ngëneel ak ci xam-xam bu sew ki ko bañ do ko ko wax hasan ibn ali ben bis muawiya dafa tok ak ay al bidaya wa nihaya ci ibn kathir indi nako moy li nga xamantene mom la tuddu legi ben bis muawiya ibn abi sufyan waxna ñen ci ñimu togal ne len من أكرم الناس أبا وأما وجدا وجدة وعما وعما أنا كان موي كيغا خامني مو غنا تيد سي نيت ني او اسكان ني نكو نجيتال جوليت ني خام نكو موكو خام نينا مودا دي جيل لوخو حسن ابن علي ابن ابي طالب مودان ني كي بايام موي علي ابن ابي طالب يا يام موي فاطمه دومي يونتبي صلى الله عليه وسلم مامام موي يونت يالا محمد مامام بو جيجين xadiija la papaam bu ndaw jaafar la bàjjanam mooy haala bintu abi taalib tantaam mooy alqaasim kii nijaayam boog mooy alqaasim ibnu muhammad ibn abi bakr mune tantam tantaam mooy zeynabu bintu muhammad ki ndax koo bañ danga ko wax ci moom déedéet kon muawiya mësul bañ ali ibn abi talib radiallahu taala anhu moo tax keroog bi ñëwee ne ko ali ibn abi talib dafa bëgg nga jaayanteeg moom mu ne leen bañu maa jaayanteeg moom waaye dama bëgg rek mu taxawal atte bi ci ñii nga xamante ne ñoo rey Ousmane bu taxawalee atte bi ci seen kaw man maay ki koy njëkk a jaayanteeg moom kii ndax bañoon na ko déedéet kon indil ñu loo xamante ne mooy wane ni muawiyatu na abi sufyaan dafa bañ ali ibn abi talib waaye li fi nekk mooy mere woon na ko te jàpp ne it mere gi mu ko mere ci dëgg la tege ñoom ñaar ñëpp dañ doon góor góorgóorlu mu jàpp ne it ali ibn abi talib moo wàcc yoon ku ci nekk daa jàpp ne sa moroom moo wàcc yoon ba jaral ko taxaw xeex waaye du mbañeel moo ko lal kon saxaaba yi ñoom ñooy ñi nga xamante ne melokaan wii moom la yàlla def ci ñoom. waaw kay maa ngi ci benn bi. boroom xam-xam yi ko doon firi moom xadis boobu kon dàpp naa ne xadis bi dàq ko. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax gum waxoon Seydina Aliyin ni ko laa yuxibuka illa mumin wala yubxiduka illa munafiq ne nga yan ci boroom xam-xam yi ñoo ko firee Muawiya yëpp naafiq la kenn ci boroom xam-xam yi kuy firi xadiis bi dëgg ci xadis bi yam ci xadis bi rekk ni Muawiya naafiq la amul parce que xadis bi du gisoo fi turu Muawiya kon du ñu firi xadis bi di fi tudd Muawiya naan naafiq la su boobaa ana xadis bi ana lañ wax ana Muawiya ci xadis bi déedéet. kuy firi xadis bi doo fi dégg mukk mu tudd turu Muawiya ndax xadis bi tuddul turu Muawiya kon nan ngay firee xadis bi dafi tudd turu Muawiya loolu kay sëriñ bi jarul nga dema ko laaj amul aywa laqad radiyallahu anil mu'minin nga ni ñu gëm yàlla ñi ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom la yàlla gërëm foofu dama la waaw loolu taxta shajara fa yàlla doon fa yonent bi doon jaayanteeg saxaaba yi ca ron garab ga dama ni ndax am na ku gëmul yàlla ku fa ne woon ba wax bi nga wax ne ku dul muuminuuna yi doo ci dugg amul saxaabi bu bokkul ci muuminuuna yi mboolem saxaaba yi ñoom ñëpp ci muuminuuna yi lañ bokk naafeq yi kenn du leen boole ci saxaaba yi ndax gëmuñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag bu fekkente ne naafeq yi dafa am ñenn ñu nekkoon ca ron garab ga ba ñuy jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu laa ni nga wax ma ko naka noonu su fekkente ne muawiya mii tax ñuy waxtaan tey su fekkente ne dafa nekkoon ca ron garab ga ba ñuy jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu boobaa nga wax ñu ko kon laqad radiyallahu anil muminin mooy laqad radiyallahu anis saxaaba id yubaayicuunaka taxta shajara ndax kullu saxaabiyin mumin bépp saxaabi rek ku gëm yàlla la ndax ngëm yàlla dafa bokk ci ponk ponki nekk saxaab yi loolu wees woon nañ ko ca tàmbali ba euh, waaw kay nee na Muawiya mosta ëmbal mbañeel Seydina Aliyin donte saxal na ni daan na ko saaga waaye saaga ga firiwul da koo ëmbal mbañeel sëriñ bi d'accord Malick mbay mën na mere léegi sëriñ Galay Jaw donte ñoo bokk liñ bokk lépp ci kaw mer mi mu daggal kaw saaga ci saa saasi buñ fa jógee ñooy bokk fa ñuy fanaani ñooy bokk la ñuy reere ji ñooy bokk fa ñuy xëyaat jëm loolu de bu dee loolu nga ci jublu lu mën nekk la waaye sëriñ bi ki ngay saaga ba xeeb nga léegi saw saaga saagawu bopp di sant ñeneen ñu di ko saaga koku yamul ci dang ko mere rek dang ko bañ sayidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu muawiya dan nako saga dan daan ko saagalo lolou du mere rek akuk mbañel la yamul ci saga rek ñu ngi ci saga bu la nexé ñu passé ko dem ci lenen waye muawiya ëmbalul luy tollok fep suuf ci سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه يامول تي ساغا كو رك يامول تي ساغال لوكو رك لوي وانيك مبانيلام دونتي جي لاني تولو مي داكو اوب ليم ديف سيدنا علي ساغا رك دو ساغالو رك وعليكم السلام ورحمه الله توبال nga jeglu sa borom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fan la ma sa waxe ne ku saga sayyidina ali nafiq nga lolou yonent bi sallallahu alayhi wa sallam musuko wax wala bu ko waxee nga indil ñu xadis bi amma wax gi ngi ne ku saaga kenn ci saaba yi naafiq nga loolu it amul kenn ku ko mas a wax ci borom xam-xam yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma fekke kenn ci ñoom saaga kenn ci ci ñoom néewul ka saaga yow naafiq nga bal waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax dafa juuyoog loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dani sibabul muslimi fusuq maanaam saga ab jullit ak maanaam dafa génnuk topp dafa génnuk topp waaye néewul ku ko def ab yéefar nga néewul ku ko def ab naafiq nga kon saaga bokkul ak mbañeel bu leen boole kon wax gi nga wax ne ku saaga sayduna ali ab naafiq nga kon muawiya ab naafiq la loolu laa ni la teguwul ci ak maandu te teguwul ci xam-xam te loolu duural yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam tuub ko aywa nga ni comme Seydina Ali bu fekkente ne Muawiya saaga na ko da koy def ab naafiq ndax yonent bee ko wax loolu laa ni la baamuwaat nga ko aw duural yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la yonent bi waxul ne ku saaga Seydina Ali ab naafiq nga waaw kay barakallahu sëriñ Mourtada Gueye yaa ngi may fekk si ndànk-ndànk nag maa ngi bég lool nii la nañuy waxtaan rek ci dal sottante xalaat xam-xam mu xam-xame rek teggi ne waaye itam xormalante Muawiya buñ ko tàggee Sidina Ali muy jooy ba soxnaam wax ko loolu mu ko wax parce que lam ko xamaloon tey mu gis muy jooy Sidina Ali loolu muy nifaax nu la neex mel waaye itam bi muy raisonné wu di wax ak soxnaam naan ko lu tax nga di ma wax loolu boo gisee may jooy dama koy jooy ndax xam-xamam ba waaw kon awee gëmoon na ni Seydina Ali moo ko ëppoon xam-xam ëppoon ko yiw ëppoon ko ngëneel ba tax bu faatoo jullit ñi daan ñàkk lu baree bare ci xam-xam ngëneel yam amoon lewet gam amoon tagg wow mu ko tagg wépp bu ko gëmoon du ko saaga ba di ko saagalu comme gëmmu ko ba noppi di jooy jooylu ba soxnaam di ko ko seedeel naan ko looy jooy yow ku la bàyyi ngay jooy yow démb yaa fi doon xeex ak moom bërki démb yaa ko doon saaga bërkaati démb yaa ko doon saaga tey nga koy jooy loolu mooy alaamatul munafiqi ci muawiya wala boog dafa bokk ci màndarga yi nga xam ni dafay saxal ak nafiq ci muawiya lii dafa bare dafa bare dafa bare dafa bare yiy wane nifaaq ci muawiya diggam ak jullit ñi diggam ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diggam ak Seydina Ali liñ ci yor séq jóor la jullit du ëmbal loolu mbokkum jullitam jullit du ëmbal loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit du ëmbal loolu ku toll ne Seydina Ali ibn Abi Talib aywa salaamaaleykum wa rahmatullah waaw mbokk yi ñu julli gee te ñëwaat ñu julli gee te ci jataay bi waaw euh, leçon bi moom defe naa ni sa taalibe yi nga koy jox ndax ñoo bëggoon a laxasu ci laaya ji ni mbooleem saxaaba yi te ñu ngi ci jublu ko daan ànd ak bi rek ko daan ànd bi rek distingué wuñ ci ndax gëm na koom gëmu ko ndax naafeq la ci ñi daan ànd ak bi wala dub naafeq ñu doon wax naan aaya bi yàlla gërëm na saxaaba yëpp te saxaaba yëpp gi ñu ngi ci jublu luxatan lastilaaxan ñoom ñoom moom sa leçon bii ba yàlla na naan laqad radiyallahu anil muminina is yu bàyyi unaka taxta shajara nafiq duggul donte jaayante na waaye itam li nga foog te loolu amul ba tax nga naan muuminiina yooyu saxaaba yëpp dañ ci dugg saxaaba bu ñëwul woon yonent bi cité wu ni maa la teewal saxaaba boobu bokkul ci taf di liya gi nga xam ni laaye ji jox na ko ca ña waaye ña jaayante woon ak yonent bi waaye ñi nga xam ni amoon nañu kalimatu saxaaba istilaaxiyan loolu bàyyi waala ko xel laqad radiallahu anil muminina is a tax yubayi'unaka taxta shajara nafiq bu ca bokkoo nit bokkoo ca ngërëm la donte jaayante nga waaye jullit bu fa bokkul woon ba tax jaayante woo woon bokkoo ca ngërëm la lu dul dañoo amaat nas ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala nas ci aayab alquran bu la dugal ci geneen ngërëm waaye bokkut ak ngërëm li la dugal ci ñi nga xam ne ñoo jaayanteek moom keroog keroon garab ga. wala iyaazu billahi lépp loo xam ni wax naa ko mu aajowoo tuub maa ngi ñaan yàlla mu jéggal ma ko tuub naa ko waaye ba léegi maa ngi saxal ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallama nee na seydina aliyin kenn du ko bañ kudul ab nafiq muawiyatu bnu abi sufiyaan daa bañoon seydina aliyin neewuma la yonent bi nee na ci xadis ab saaga ku ko def seydina ali nafiq nga bu dee damaa wax loolu sabuxu lisaan la damaa juum li ma bëggoon a wax moo di ku bañ seydina ali nafiq nga yonent bee ko wax man maa Muawiya dafa bañoon dina Aliin moo tax ma gëm ni naa naafiq la te du saaga dong la séq ak Seydina Aliin waaye def na ko yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne tekkiwul da koo mere saaga ko wala daa bokkul ak moom xalaat saaga ko déedéet da koo bañoon lim def lépp kooku séqal danga koo bañ mere nga nit saaga ko bu mer ma jeexee dangay ngay di ko saaga bay sant ay nit ñu di la ko saagal ba ku wax ci moom lu rafet ci sa kanam ba kanam xaj na ci ku wax lu rafet ci Seydina Alin ci kanamu Muawiya yaa gën a repp xarum tabaski allahumma salli ala Seydina Muhammadin nabi mbokk yi man de dama bëggoon bu dee alxuraan la ñuy waxtaane ak waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te dañ ñi alxuraan ak sunna rek lañ bëgg a dund nañu settantal li alquran di wax ak li sunna te mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu settantal ba ni wér na fekk ko ci téere wiir yi ñu xool prix mi bañ cee dugal taasub bañ cee dugal parparlo bañ cee dugal gis naa dëgg ci sama loxo mbokk mi ma doon weranteel waaye am na rëyug jox ko loxo ni ko maa juum Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na Ali nafiq dong nga koy bañ lii dëgg la wala du dëgg dëgg la ngeen may wax dama ni Muawiya dafa bañoon Seydina Ali moo ko juraloon di ko saaga di ko saagalu. muawiya bañ seydina ali na ko jural ku wax ci kanamam lu rafet ci seydina ali sa bakkan xaj na ci sa kaso xaj na ci sa ay yar sàppi la xaj na ci mu ndax lii ko bëgg lii nga koy faye waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu xayaakumullah mbokk yi eh, dellu si nañ ci ci jataay bi léegi eh, ngir organiser waxtaan wi eh, ngir ñu bañ a rawante ci ayib Euh, ay ay audio nga xamante ne damay indi ñaari audio ba ñett moom mu indi ñetti audio ba juróom man ma ñëw indi ñaari audio nga xam ne dañuy rawante nga xamante ne bu boobaa débat bi sunu waxtu wu bëree bëree bëri dafay sànku li ma bëgg mooy ñu jël benn point par benn point benn point bu ñu wax ba génn ca daa di dugg ci beneen waaye point yi nga xamante ne comme nii ñi nga xamante ne noonu lañ ko doon souligner léegi nga xam ne dañuy rawante nga xam ne day wax ba sori man ma ñëwit wax ba sori moom mu ñëw wax ba sori bu boobaa loolu sunu waxtu lu bëree bari dafay yàqu léegi bëgg naa ñu organiser waxtaan wi nga xamante ne euh, dëgguk sunu borom gi dana feeñ te sunu waxtu du yàqu incha allahu taala maa ngi koy ñaan mbokk yi nga xamante ne ñooy saytu liggéey bi waaw loolu moom laa la wax ci audio boobu léegi bu dee loolu laa wax sabu lisaan la dama ci jóom maa ngi koy jégalu yàlla maa ngi koy jégalu itam mbokk yi taaxirlu euh, Sidina Muhammad ma wax ni ku saaga Sidina Ali nafiq nga bu dee loolu laa wax sabu lisaan la dama ci jóom maa ngi koy jégalu li ma wax mooy Sidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na Sidina Ali ku la bañ nafiq la te Muawiya daa bañ Sidina Muhammad kon nafiq la. waaw euh, ba léegi ñu ngi déglu mbokk yi pour ñu euh, maanaam organiser waxtaan wi bu ko defee sunu waxtu du sànku te dëggug sunu borom ngi dana leer ci ñun ñëpp bu ko defee ñun ñëpp ñu jógee fi ku nekk ànd ak basira euh, ñi ngi ñaan mbokk yi ñu taxaw ci organiser li nga xamante ne mooy waxtaan wi bu ko defee ñu jël ko benn point par benn point pour waxtu yi bañ a sànku waaye pour jaxasoo ak pëccëxoo bañ cee am barakallahu fiikum o oh, amin ya rabbi wa eh, xam naa nag dañ koy jàppal ngant ndax maa ngi nii am yitte yu may doxi ñun taalibe Seydil Xaaji Maalik yi àllarba ci ngoon dañuy am daayira ca laa jëm nii xam ngeen ni ginnaaw tàkkusaan ak léegi maa ngi ci kër gi heure daayira jot na waaye waxtaan wi wax dëgg yàlla bëgg naa ñu utal ko bis utal ko heure utal ko ku koy ku koy saytu comme ni ko Moustapha Cissé doon saytoo bu ko defee ñu defee ko ni nga ko waxee nga def benn point benn audio même pas mën na bañ a romb deux minutes da nga cee souligner su muy ñëw tontu la ci loolu bu ko defee dañ ko organiser organiser boo xam ne bu jëlee suñu une de temps itam dana am njëriñ Euh, comme noonu nga ko saakoo fekk si naa la ci waaye ñu jàppal ko moo xam tey ci kanam la su ma wàññi koo daayre su ma wàññi dinaa ni wàññi ko na bu la fekkee jàppandi ñu continuer ko organiser ko noonu mais ñii di dugg nii ku ne di ma cokkaas nii te dégluwuma ci kenn ku ma koo gis ma kuraa ko fi rek dégluwuma ko mel nu Moustapha Cissé mii laa fi doon déglu ak yow waaw. waa Cissé moom maa ngi ko doon déglu li ma doon wax maa ngi ko ci doon déglu waaye ñeneen ñi ñëpp xaw ma lu ñu wax ku ma saaga xaw ma ku ma tàgg xaw waaye daal déglu ma ci picc amaa yow nag waxtaan wi nii ñu ko tàmbalee pare naa pour continuer ko ak yow nii man li ma gëm xattal aan mooy naafiq laa jàppee Muawiya ay teg sama ko wan ay waaqi ñoo ma ko wan kooku nag du ma tarat di ci moom gannaaw bu ma xamee ni ñi daan ànd ak yonent bi ay naafiq am na ca alxuraan wax ma ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxe ko loolu mënuma lu dul gëm ko waaqe yi firndeel ni diw mii ci la bokk diw mii ci la bokk diw mii ci la bokk su ma amee waaqe yooyu damay gëm ni ñii ci lañ bokk bis boo ma teggilee waaqe yooyu ni ma déedéet firiwul loolu billahi la ilaha illa hu bis boo ma ci yaayee ma jox la loxo tuub li ma doon wax mu Muawiya lépp waaye xattal aan laa gën a gëm ni Muawiya ibnu Abi Sufyaan du ma tarab bii ci moom ku ko mën a gërëm gërëm ko ku ko mën a ñaanal ngërëm ñaanal ko gërëm du man man it ko yéene de du ko ëmbal de déedéet lu ko texte yi seedeel la lu ko texte yi junjul junjal la lu ko waaqi yi junjal la ma gis texte yi gis waaqi yi gëm ko lii moom a ci baax su ma wàññi ca daayira bi incha allahu rabi daañ continuer waxtaan wi ndem fekk na la nga jàppandi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi waaw léegi euh, nañ déglu ki nga xamante ne moom mooy organiser waxtaan wi amma jëmmi ne damay dem béréb sàngam maanaam yooyu ngay tudd yooyu xam nga ni ñun gëmuñu yooyu daanaka yooyu jërul nga ñu koy wax waaye lu mën a xew léegi la wala ci kanam la pare naa bu ma nekk tey ci guddi gi nag moo ma gënal ndaxte euh, suba dafa am programme mu boppam maanaam man tey ci guddi gi dootoo a gis ci groupe fii ba samedi ci kattanu yàlla voilà léegi kon na nekk tey ci guddi gi Euh, ñu xool heure bi nga xamante ne ci ngay am jot ma ma ñëw incha allah ñu waxtaan bu ko defee mu nekk point par point point yi nga xamante ne weesu nañ ko ñu dëppoo ci comme xam saxaabi mooy lan loolu bu boobaa ñu bàyyi mu jàll ginnaaw gi ñu dugal point yi benn par benn ba ba muy jeex muawiyatu bnu abi sufyan radiallahu taala anhuma mi nga xam ne da nga ne da ngaa jàpp ne naafiq la sëriñ bu ma am man ak sëriñ boo am yow muawiya ko gën wallahi alazim texte moy li nga xamante ne moo wane ni muawiyat sufyan ci saxaaba yi la bokk te aljanna fikum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw cheikh moustapha dégg nañ li nga wax li nga xamante ne moo des rek mooy waxtaan wi moom waaye waxtaan wi nay doon tey jii ci guddi gi ndax man li tàmbalee suba ba samedi damay quitter whatsapp du ma dugg ci whatsapp incha allahu taala kon loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax bu fekkoonte ne maanaam man naa ñëw léegi ñu tàmbali ko léegi loolu mooy li nga xamante ne moom a gënal léegi nag yéen ñi nga xam ne yéenay organiser waxtaan wi bu ko defee waxtaan leen ci euh, heure bu ngeen ma jox rek incha allah ci guddi gi baax na. waaw xam ni gëmoo ko moo tax ma wax la ko ñun Seydi taalibe Seydi El Hadji Malick bi ma la koy wax xam naa ni gëmoo Seydi El Hadji Malick gëmoo ni kenn war naa nekk taalibeem Muawiya aljana la jëm incha allahu weddewu ma ko Iblis sax aljana la jëm incha allahu incha allahu rek kay boo ko ci tegee moom coow li du bare dañuy daal di dëppoo léegi amaa nag Muawiya gën say sëriñ d'accord. waaye man Muawiya gënul samay sëriñ te boo ma neetee Muawiya gën say sëriñ dinaa tudd ku gën a bon ni la moo gën say sëriñ man gëw ma ni gën na kenn ku dul ku mel ne moom waaw débat bi mën na nekk tey mën na nekk tey fa jëm bu ma fa yeewi ko incha allahu rabbi bu xajee ci guddi gi dinaa dugg ne dañ ko def ci guddi gi fii ba fajar fu mu xaj incha allahu rabbi di ko yëg. cheikh bi bugguma nga may dugal feneen fu bokkal ak débat bi. buma tuddal Cheikh El Hadj Malick yow sori nga nek talibem Cheikh El Hadj Malick amul kenn ci saaba yonent bi ko xamantene mas jam wala mu nan ko nafiq nga manam genné ko ci diine ji ab yefer la lolou amul kuko massa def Cheikh El Hadj Malick ci khilasu dhahab dafa tudd Muawiya ci bir sahaba yi bamuy muy jeexal mu ne ñom ñëpp yalla na leen yàlla gërëm kon yow wute nga ak sa serigne fofu waxal benen ngir go xamantene moy moom ngay topp geneen ngéer gu dul ngéer gi nga xam ne moom la Seydi El Hadji Malick topp ci saxaabatul kiram wute nga ak moom ci Muawiya moom nee na Muawiya ci saxaaba yi la bokk ñaanal leen yàlla gërëm leen yow nga ni Muawiya naa feq la kon bul tudd Seex El Hadji bu ko tooñ euh, beneen bi mooy nga ni bu ma nee Muawiya moo gën sa sa nga wax nga tudd koo xamante ne ka gën a bon moo gën sama sëriñ man li ma lay wax mooy Muawiya laa wax de moo gën sama sëriñ moo gën sa sëriñ légui nak lo wax baax na waaye loolu moom mooy li nga xamné adinullah bihi te ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ko tek euh amma wax ne iblis aljanna la jëm insha allah lolu lolu ku ko wax génn ci diine ji iblis mo xam da nga ne aljanna la jëm mo xam nga tek ci insha allah mo xam tegoo ko ci ku ko wax da ngay génn ci diine ji lutax ndax borom bi tabaraka taala mo atte ak texee deem waaye nag kuy wax ne kenn ci saaba yonent bi ab naafiq la koo xam ne yonent bi seede na ni aljanna la jëm nga sa nga seede yow ne ab naafiq la ah kooku bu boobaa mën ngaa wax ne iblis aljanna la jëm bu boobaa dañ lay dogal ngant xam ne euh, ak réer moom géej la goo xamante ne amul tefes waaye yii yëpp bu daf ñuy génne ci waxtaan wi nga xamante ne moom lañ nar a waxtaanee léegi bu fekkente ne xam nañ heure bi rek bu boobaa incha allahu taala euh, ñëpp danañu جرينو بصوب يلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله حاج مصطفى وباخنا اللي يكون ينكو يخار موخم دفا دم دائرة موخم دفا جلي بند لو كما نخيو اللي موخ مملاني جاب دي خار با ër ba nga xamante ni ñëw na na ngeen ñu ko teel a wax bu defee ñu daal di toog ngir jotaay boobee incha allah barakallahu fiikum. Mourtada Gueye yow ak say sëriñ maa ngi ci jublu ñi nga bokkal pas-pas boobu nga amee yéen ñëpp ay. aywa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi déglu ak mbokk yi mbokk mi nga xam ne moom la bokk numéro am àndaale euh, nuyu nañ leen di ñaan yàlla defal ñu tawfiq te defal leen ko. Euh, lii moy wane ne ahlu sunna ñoo gën a xam ñëpp dëgg waaye ñoo gën a yërëm nit ñi yàlla xam na ni kii wax waxtu yi ñuy dépensé yëpp ngir wax ak moom yërëm ko moo tax waaye ñoo ko ëpp sago yit ndax wax kenn ci saaba yonent bi sallallahu alayhi wa désigné ko ne kii ab naafiq la te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxu ko yàlla waxu ko kooka gëm yonent bi ba faatu ci ngëm yàlla yonent bi seede ne armée ba mu jiite woon ña nga aljanna ku wax kooku am naa fekk la loolu dara gënu ko metti ci xolu jullit bu gëm yàlla waaye lu lan lañ gëmoon mooy liñ gëm mooy ki koy wax dafa amum lënt amaana buñ waxeek moom am lëntam dana dañ te ki koy wax ay sëriñam yépp Muawiya mooy seen sëriñ mooy seen delluwaay dañ ko bëgg dañ koy kañ dañ koy ñaanal yàlla ngërëm comme niñ koy ñaanale yeneen saxaaba yi kon kooku feebar dugg na ko boo xamante ne jëlewu ko ci ay sëriñam waaye ca bitti la jóge ñu bëggoon a waxtaan ak moom ngir feebar boobu dañ waaye gis nga bi ñu tuddee ay sëriñam boole kook sunuy sëriñi bopp nga xamante ne bu boobaa ak maandu te mënul weesu loolu ne mu Muawiya ñu gën mu tàmbali saaga nga xam ne kon ñàkk na sago ñàkk gu sago gu toll ne ñun luñ ko wax rek luñ wax ay sëriñam tey dañ koo booleeg suñuy sëriñ ne Muawiya leen gën mu ne kon ñun ak suñuy sëriñ dawkat ba moo ñu gën nga gis ne kon kooku bànneexu bakkan moo fa nekk xam-xam néewu fa ay teggin néewu fa léegi nag mbokki jullit yi alhamdulillah léegi nag mbokki jullit yi euh, lu tax muawiyatu ibn abi sufyaan gën sunuy sëriñ ñun ahlu sunna loola maanaam lu yomb xam la mooy sunu sëriñ yëpp booloo nañ ne muawiya ñu gën amul kenn ci sunuy sëriñ koo xamante ne wax na ni kenn ku bokkul ci saxaaba yi yaa gën kenn ku bokk ci saaba yi maanaa xamuma bokk kenn ci ahlu sunna ko wax ne muawiyatu ibn abi sufyaan am ku nekkul saxaabi koo xam ne gën moo ko kaw kon loolu ñun sunuy sëriñ yëpp muawiya leen gën bal li bi wax ci muawiya waxu ko ci kenn ci sunuy sëriñ waxu ko ci kenn ci sunuy sëriñ armée boo xamante ne arme lëmm yonent bi ne aljanna war na ngir ñoom muawiya jiite armée booba kan ci sunuy sëriñ moo ca bokkoon ci sunu sëriñ yi ñu xam yi ñu nga xam ne ñoo ñu gën a jege jamono ak sax ña ña a jiitu kenn bokku ca woon tayib léegi kon nañ dem foofu duñ fa taxaw muawiya gën sunuy sëriñ ñun tayib xam naa ni xëy na mbokk mi day leneen moo tax mu wax loolu waaye duma ca ñëw lu tax muawiyatu bnu abi sufyaan gën ay sëriñam ay sëriñam ñooy ñan ka ca gën a fés mooy koo xam ne dafa duural yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ne yonent bi moo ko jox aw yoon woo xam ne ku jël yoon woowee ëllëg yowmal qiyaama kenn du la atte kenn du la xisaab da ngay dugg aljanna direct Li kan moo ko mas a wax ci saaba yi ne am na yoon wu ñu wu ma yonant bi jox woo xam ne man maa sama mbar feggu la man la ko jox ak ku ma topp ne ku ko topp ku jël yoon woowu ëllëg yowmal qiyaama kenn du la xisaab kooku duural yonant bi mënu ko weesu te yonant bi nee na woon ku ma duural fekk yaa ko tey sampal sa bang ca sawara yàlla ci yàlla musal kon kooku moom kenn du ko comparé kenn du ko jegeele ak muawiyatu bne abi sufyan radiallahu taala anhuma kooku ñëw andi aw yoon woo xam ne nee na ku jël yoon wa ak say doom say sët ñoom ñëpp ëllëg yowmal qiyaama da ngeen di jàll aljanna ngeen jëm buñ la dugalee sa biir bàmmeel am na barzax boo xamante ne bu spécial la boo xamante ne ca ngay ne kan moo wax lii lan mooy layam ana firne la ci alquran ak sunna duural yonent alayhi salatu wasalaam kooku dallu muawiya sax moo ko gën indi aw yoon woo xamante ne indi na ca ay mbir yoo xamante ne danañ dañ koy jëfandikoo genn ca salaatu yooya mu ne ngëneelam wecc na tudd yàlla guñ masa a tudd yàlla ci kaw suuf sabbal yàlla guñ mas a sabbal yàlla ci kaw suuf ñaan gu mag ak gu ndaw guñ mas a def yàlla ci defal yàlla ci kaw suuf ak nga jàng juróom-benn junniy kaamil alxuraan yool ba genn salaatu googu da koy wecc nga xam ne kon yoolu gi ne ci salaatu boobu ngay jàng alxuraan ba muy juróom-benn junniy yoon yool boobu bi ci salaatu gi moo ko ëpp naka noonu nga boole ca kàbbar yaak ak ya likan kan moko ñame wax ci saaba yi taabicuuna yi atbaacu imam malik khalaatu ñu wona dural yonent bi duru wu tol nii kii pënd ba nekk ca dalli muawiya moko gën koku amul sikki saka ndax mbokki julit yi sëriñ bu mel nit di défendre dural yonent bi duru wu tol dem seppi nit ci àndandoo yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi seede ne moom ak armay ba mu àndaloon aljanna lañ jëm doon bindal waxyu yonent bi alayhi salatu wassalaam bi wàcc ci moom mu ne kooka am naafiq la wuuteeg ahlu sunna wal jamaa wuuteeg mboolem ay sëriñam mboole seen même sëriñam bii ma tudd nii dafa wuuteeg moom ci loolu musta ngañ ñi Muawiya nga tudd sëriñ boole kook sa sëriñ sëriñam boole kook sa sëriñ ne Muawiya leen gën mu ñàkk saago gu tol ne commencé saaga loolu mooy wane ne kon banneex moo dugg ñàkk xam-xam ak moo dugg si waaye ñàkki teggin moom mooy li nga xamante ne moo dugg si waaye lu mën a xew ñun ahlu sunna wal jamaa ñooy soldaar diine yàlla ji incha allahu taala yal ñu yàlla rey ci loolu ñooy soldaar yi saabay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen défendre ci sunu lépp mu jaral ñu lépp saabay yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme niñ koy waxee saa sune képp ku wax ci ñoom naka sudul noona da mel ne ku jaaxaan di gaana waaye soobee siy génne ci yow day tëb ba ca kaw wàcc ci sa kaw waaye du wàññi saaba yi dara ndax yàllaa ko yonentam gërëm nañ leen ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñoo ñoom tàbbal aljanna kon lii mooy li nga xamante ne moom laa bëggoon a yokk ci mbir mi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq te defal leen ko salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk mi ma bokk ni am àndaale audio bi mu ciy wax ne jëmm ji nga xamante ne moo waxoon lu ne weng te mooy weddi contre lo xamne dafa sax ci l'islam daal di saxal lu saxul ci l'islam naharan jiharan manam ci beccu ndara kam koka lay défendre tay waxtu yu néew ci gannaaw amna ko fi nen muawiyatu bne abi sufyan radiallahu taala anhuma ma doon bindal wax yu yonent bi yonent bi ne moom ak armée ba yéegoon ca moom ak armée ba yéegoon ca géej ga te ñoo ko njëkk a def mu ne armée booba aljana lañ jëm te moo ko jiite woon mu ne Muawiya moomu ab naafiq la ba mu ko waxee ma nga jaaxaan di naan ndox mu sedd kii ñëw wax ci lislaam loo xam ne kenn jiituwu ko ci te mooy wax ne dafa contre sànni jamra mu ñëw di ko défendre di dal ci kaw ñi nga xamante ne ñoo leeral loolu <coughs> topp bànneex munta weesu lii par parparloo mënta weesu lii waaye lëndëmal ak réeral doomu aadama yi mënta weesu lii waaye ñeme sunu borom subhanahu ak jalgati ay principe yi mënta weesu lii yal nañu yàlla musal ci topp bànneex alhamdulillah euh, nitu fitna dëgg-dëgg mooy nit koo xamante ne bu ñu jargatee principe yi ngatal nga toggee say tànk te bu ñu dalee ci kaw ku jalgati principe l'islam nga di ko défendre di dal ca kaw ña nga xamante ne ñooy dal ca kawam nitu fitna dëgg-dëgg mooy ku mel nii yàlla ñu yàlla musal ci koo xamante ne loolu mooy sa taxawaay waaye loolu dafay tegtale ak torox toroxtaange goo xamante ne ñiy topp seen bànneex ñoo koy torox fii ci àdduna balaa àllaaxira ñëw waaye jo def nañ suñ bopp waqf joxe nañ suñ alal joxe nañ sunu bopp joxe nañ sunu bakkan ngir défendre diine sunu borom ji ak seetal ko ci lépp loo xamante ne dañ ko cee taqal te bokku ci waaye ngir defendre principe bi l'islam ak ñi nga xamante ne ñoo ko toxal muy assahabatul kiram ridwanullahi taala alayhim loo ak képp koo xamante ne nag da ngaa wàcc woowu yoon ak koo mën a doon loolu fuñ mën a nekk loolu la ñuy yendu loolu la ñuy fanaan ba ba ñuy wuy ji sunu borom insha allahu taala yàlla ñu yàlla saxal ci loolu ba ba ñuy dajeeg ngërëmam. salaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu. waaw mbokk yi bu loolu wéyee damay laaj ñi nga xam ne ñoo doon ñoo waroon organiser waxtaan wi damay laaj wan waxtu lañ ko war a def wan waxtu lañ ko war a def nañ ma ko wax léegi euh, balaa 30 minutes bu ko defee euh, jamono bii may wax yéen. fii ma nekk vingt trois heures cinquante jot na kon mi ngi bëgg a guddi su fekkente ne euh, waxtaan wi warees na ko continuer bu ko defee ñu organiser ko nañ ma ko wax fii ak trente minutes bala trent minutes maanaam fii ba zéro heure vingt incha allah taala maa ngi leen di déglu ci loolu. bu fekkente ne da ngeen koo jañit ba beneen yoon maa ngi leen di ñaan ngeen def ko bis boo xamante ne dana fekk ñu féex. Eh, man yaakaar naa ni fii ba samedi moom euh, du ma am jot maanaam dimanche laa jàpp ne xëy na ci lay am jot te séentu naa ne dimanche ci ab tukki lay nekk maanaam diggante fii ba maanaam bu guddi tey jeexee daal sama jot du ma xam kañ lay doonati. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Allah. mbokk yi ñiy wax yi ñuy wax ñi yépp ab ñag la ab ñag boo xamante ne dañ koo bëgg a doxalee seen diggante ak leeral diine sunu borom ji nga xam ne. doomu aadama yi ñu ngi ciy jot muy leer ci ñoom ay caaxaan di leer ci ñoom it ñu di ko wan gannaaw kon ñàkk boobu ñu bëgg a ñàkk seen digganteeg leeral diine sunu borom ji xam leen ko buñ leen yàqal seenub liggéey waaye buñ leen soppil yoon wi nga xamante ne ci ngeen doon leerale diine sunu borom ji mooy di wax wax ju rafet ju tegu ci xam-xam tegu ci yar ak i teggin buñ leen déraper ba jaarale leen feneen. loolu maa ngi koy ñaan sama mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci daara ji yépp barakallahu fikum Alhamdulillah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dama ni woon sax xam ni fan yii damay bër ci whatsapp bi waaye xam naa du ma topp groupe yi waaye maa ngi ñaan mbokk yi képp koo xamante gis na ku jalgati lenn ci diine lislaam ji loo xamante ne munul xaar ngir ñu leeral jalgati ga jalgati ngir jaami yàlla yi bañ caa tabbi nañu ko jottali loolu dama koy ñaan mbokk yépp leeral diine sunu boroom ji moo ñu gënal lekk moo ñu gënal naan moo ñu gënal lu ñu mën a am ci àdduna moo ñu gënal sax sunu bakkan bii barakallahu fiikum